asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne yéen ñuy seetaan ci seen seen télévision di MKTV Muxaddamatul Xidma TV ñu ngi leen di nuyu euh, di leen siyaara di leen ndokkeel di am mbégte bu baax a baax di leen wax ne tey seen seen MKTV ci liggéey bu am solo bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy def ngir toppi jéego yi sëriñ bi muy film documentaire boo xam ne ñu ngi leen koy dikk incha allah dina ñëw ci kanam. Euh, ñëw nañ nag fii ci Togo Togo nag bokk ci West Africa maanaam ci réew yi nga xam ne dañoo seq seen wàllu économie ak seen wàllu aram ñoom ak Sénégal ci lañ bokk fii nag di Togo population bi ñu ngi war a toll ci 7 millions et quelque maanaam dafay mel ne Sénégal ku ëppee na ko ñaari yoon wala ñetti yoon seen climat nag climat bi fi nekk climat bu xaw a sec la maanaam euh, dafa xaw a tàng tuuti te it dafay taw lu bëri boole ci. dëkk la boo xam ne nag euh, bi ñu accès ci aéroport bi li ñu fi gën a remarqué mooy sécurité bi bëri na ndax dafa mel ne wàllu kaaraange gi ak wàllu aéroport bi militaires yi ñoom ñoo ko yor ki nga xam ne mooy président bi mooy euh, Faure Yacine Ayadema di doomi président Ayadema euh, moo fi nekk. Sénégalais yi nga xam ne ñoo fiy dund nag tey bi ñu rencontré la ambassadrice di soxna Rokhaya Ba mi nga xam ne. moo nekkoon consul général Italie léegi président Macky Sall andi ko fii mu doon comme ambassadrice wax nañu ne ñu population Sénégal bi fi nekk war naa mat ay huit cent cinq personnes euh, wala huit cent dix personnes kon population Sénégal bi fi nekk juróom-ñetti téeméeri nit ak fukk du ko sori noonu lay demee. Euh, ñoom nag li fii seen dund fii ci wàllu yëngu yi ñu fi yëngu bokk na ci commerce tailleur ak restaurant. ak lépp loo xam ne dafay aju ci wàllu bijouterie ay bijouterie yi ñoom it bari nañ fi euh, ci loolu la ñuy yëngu ñoo am fi nag ay taxawaay yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy def di liggéeyal sëriñ bi ci góor góorgóorlu lañ ba am fi kër sëriñ Tuubaa gu baax am nañ fi tamit jumaa yoo xam ne tabax nañ ko ci biir kër gi loolu xam naa ne incha allah ci suñu waxtaan yi ñuy def ak ñoom buñ demee foofu ci résidence Cheikhoul Khadim bi danañ ci gën a ñëw kon daal bokk yi fii di réewum la moo xam ne ubbiku na te euh, Euh, bëri na tamit ay mbir yoo xam ne ñi ngi fi ci yoo xam ne yuñ mën a teg loxo la yuñ mën a gis la yoo xam ne mën nañ cee jàng lu bëri kon ñu ngi leen di dig daje ci suñ beneen jataay walla ci suñ beneen réew comme ni ñuy toppee euh, tànk sëriñ bi tey jóge nañ benee tey ñi ngi Togo incha allah ëllëg ñi ngi Côte d'Ivoire ginnaaw ëllëg ñi ngi Conakry asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu dañuy ñëw doon def rek topp tànk Serigne Touba fi mu jaaroon ko tàmbale Cotonou lome Abidjan Guinée mu ñëwee fii nag moom mu ne ah comme que gan la boo xam si bu tedd la il faut mu ñëw nuyu si la ndax yow ñun yaa fi yaa yow la ñu am fi daal yaa fi yaa fi suñu kër yaa fi suñu lépp daal léegi ñu ni dañuy def dara ba ba ñu dem fenn dañuy ñëw ziyaare la yëgal na ñu ngi fi def fi ba le 15 allah lañ fi jógee dem Abidjan démb lañ fi ñëw jógee Cotonou waaw léegi loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne si ak tànk yi nga xam si moo ko yëkkati yëkkati délégation bi ñu ñëw nag léegi la ziyaare waaye incha allah rabbi de sant bu baax a baax waa di ñaan yàlla defal la fi jàmm ak wér ak sutura jërëjëf baax incha allah rabbi. waaleykum wa rahmatullahi taala Eh, gannaaw bu ñu siyaaree suñu kilifa ndax moo fi suñu Macky Sall moo fi suñu président Macky ñun fi mooy suñu kër ci réew mi yëpp àdduna yëpp ñun fi mooy suñu kër kon soxna si ñu ngi sant bu baax ci ñu eh, ñu recevoir woote démb rek ngeen ñëw suba moom ñun ñu dañu ab cër la kon yal na yàlla fay te liggéey bi nga nekk tam yal nañ ko attan lépp woyof tooyoon ci ba nga ba nga am ci ndam suñu président Macky Sall Euh, di siyaare waat aussi premier conseiller Moussa Ba ñu ngi lay siyaare baax a baax moom itam ñu euh, ko baax la ko xam ne lu xew rek mu ci suñu biir ñun ñu ne moom ku ñu yëg rek ñun dañ lay faale te moom ku ku ku doomu aadama yi la suñu baax kon jërëjëf di président aussi délégation bi mu àndal euh, mu jiite ko man jëwrin Mahmoud Dramé teg sama vice président aussi jëwrin Mame Baba Dieng ak teg ci jëwrin Daouda Niang ki yor wàllu organisation bi ak euh, maam Charam Fall Babou Mour Dieng ñu ko wax Assane Fall askaay mooy délégation bi kon ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di siyaare sëñ Ngom mi filmé euh, di wax kon jërë ngeen jëf kon ñu ci ci kër Sénégal yi jërë ngeen dalal bi ñu dalal di am mbégte loolu tamit ci biñ la fekkee ngir xam gu ñu xam sa taxawaay ci bu yàgg ci comité sénégalais. Eh, yàlla dogal na tournée yi suñ Mamour di def Europe yëpp eh, dama ciy ànd ndax moom toujours dafay prier grande mosquée bi ñu jox ko ku mu àndal tournée yi muy def Europe yëpp ba Amérique dañuy ànd ma gis fi mu la teg ak eh, ni mu la fonke ngir sa pas-pas ak sa taxawaay te loolu lépp sa engagement ak sa taxawaay bu rafet ci sa liggéey moo ko moo ko waral xëy na population yaakaar naa mbooloo mi nekk Italie ñoo ëpp ñoo war ëpp ñu nekk Togo kon foofu ku fa ràññeeku ci taxawaay rek jàmbaar nga ci sa ci sa liggéey nit fii ñu la fekk ñu ngi la fi ñaanal suñu borom defal la fi ndam yu ëpp yi nga am fële bi barakati xaadim rasul ginnaaw loolu ñu ngi nuyu kilifa yi yi ñu àndal xam ne ñoom ñoo nekkal sëriñ bi fii ndax ñoo ko fi defal li nga xam ne moom la bëggoon muy taxaw diine ak yar ak jàngale euh, di nuyu jëwriñ sëriñ Mamour Dramé ak sëriñ Bam Baba jeng ak ñim présenté léegi ñoom ñëpp rek ñu leen di nuyu di nuyu timit sa conseil spécial te di ko sant moom xam naa seen liggéey bëri na duñ jël seen temps dañ lay leeral rek man ak si Abdou Khadir Boussa mi li ñu fi indi fii tey sëñ maam Baba junj na ko léegi dafa am liggéey boo xam ne Cheikh Mouhamadul taxaa daf ñu ko sant jox ñu ndigal tamit ñu ñu def ko muy sëriñ bi bind nañ ci moom sëñ Basiiru bind na ci si moom Lamine Diop Dagana historien yu bëri bind nañ ci moom waaye moom ñun dañoo joxaan ndigal muy daayira Moukhaddamatoul Khidma bi yor jumaay Tuuba ngir ñu toppaat tànki sëñ bi fi mu jaaroon fépp ngir ñu mën cee réaliser benn documentaire boo xam ne sur les traces de Cheikh lañ koy tuddee moo tax dem nañ Gabon euh, def nañ état bu Gabon def nañ état bu Sénégal yëpp ba def Gabon mu dese woon ñu daaw mi muy Cotonou Togo bi Grand-Bassam Conakry moo tax suñu yoon wi ñu tàmbalee ko daaw mi fa lañ jóge moom it fekk nañ fa euh, conseil itinéraire bu sëñ Ibrahima Sow moom it wax dëgg taxaw taxawaay bu rafet boole ñu ak autorité yi nekk foofu ñu taxawuñu bañ def suñu liggéey autorisation yi ci war yëpp ñu def ko euh, bi ñëwee fii tamit euh, fekk fi ñoom sëñ Mamour Dramé ñoo ñu jël si dalal ñu ñu fas yéene ñoo accompagner it ñu def liggéey boobu jaaru na it nag kër nag soo ñëwee ci dëkk nga dem nuyu ji borom dëkk ba surtout ku mel na yow ak sa bëgg lislaam ak euh, lu ñu xam ci yow loolu moo tax ñëw fii dina jaadu waaye eh, li ñu yëkkati mooy loolu mooy gëstu fi sëriñ bi costé woon ak seet tamit dëkk bi seeni taxawaay surtout tamit sénégalais yi nekk fii ak it taalibe yi gën leen a renforcer liggéey bi nga xam ne moom la sëñ Mamour di def Italie daal daanaka moog bi ñu yëkkati ñooyam muy lépp loo xam ne luñ gis ci ay orientation yu yu leen di gën a boole yuy gën a jëmale seen liggéey kanam luy gën a jëmale liggéeyub sëriñ Touba bi fii dafay bokk ci jéego yi nga xam ne ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy doxale ndax euh, bisu biñ bi ñu def fale jàpp naa ne biñ fa demee ci am ci meeru Porto Novo am na ay engagement yu jëlaat ba wax ne sax bëgg na ville de Touba ak ville Porto Novo ñu am relation bu rafet ngir la fa Sëñ Touba jaar loolu lépp liggéeyu liggéeyu état la waaye ñun ay facilitateur lañu rek suñu seen seen digg ak euh, population bi loolu mënut a ñàkk ñuy liggéey loolu comme ni ko sëñ sëñ Mamour di waxee. man nag maay jiite commission culture et éducation bu Muxaddamatul Xidma muy mbooloo mi nga xam ne sëñ Muntaxa ñoom la dénk lu aju ci jumaay Tuuba ak yu bëri comité d'organisation màggal gi ak euh, yu bëree bari yoo xam ne daal lu aju ci wàllu diine la ci tàggat jumaa yi ak jàkka yi ak taxawu leen kon lépp loo xamante tamit mooy tax ñu xam réalité yi dëgg-dëgg sëñ bi yoon wi mu doon jaar ñu fexe ba dem dox tànk yooyu seet tamit li nga xam ne mooy li ciy dëgg dëgg dëgg ñu gëstu ko euh, def ko benn film bu ñëppee bind ko benn téere loola mooy li ñu li ñu gën a yëkkati fi mu nekk nii ngir ñu ñëw saa suñ jógee nag ñun dañ koy boolewaale ak li ma la wax léegi doxaale luy seet suñu bokki taalibe yi fi ñu nekk ak lu ñu leen mën a dolli ak lu ñu mën a gën a waxtaan ak ñoom luñ gis ne tamit jaadu na Touba gën cee taxaw ngir seen doxin fii ñu fexe ba xam ko euh, ànd ceek ñoom ngir loola loola loola am loolu daal moo doon doonoon jéego yi nga xam ne moo ñu fi yëkkati sëñ Abdou Khadir mi moom moo yor télévision jumaa ji grande mosquée de moom mooy responsable communication bi euh, xam naa ab sëriñ la waaye formé nañ ko ci loolu ci audiovisuel bu baax a baax a baax ba ba ba man na ko ak euh, cameraman bi mandal ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm daal ci tënk loolu moo doonoon li nga xam ne mooy li ñu fi indi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilahi rahmaani rahim gannaaw ba mu leen bale àq yéen ñëpp maa leen di balu yéen ñëpp àq di joxe nag ziar bu tedd sëñ bi di di ko ñaan nag mu jàllee leen ñu ko ci sëñ bu mag bi am naa yaakaar ne dana ca àgg di rafetluwaat di wante nag di jégalu ndaxte ndox ma ne rek délégation xaw ma woon nu délégation bi bindoo ndax su fekkoon ne xamoon naa ne nii la bindoo amaana na man maay déplacé wu ñoo fekk si leen fa ngeen nekk di si jéggaluwaat bu baax a baax wax dëgg yàlla waaye nag am contentement ndaxte wax dëgg yàlla sama mara rek laa fekk si jéggalu nag bu bëri bëri na mara yàlla xam na loolu xaw ma woon ne délégation bi nii nii la bindoo <laughs> wax dëgg yàlla gannaaw loolu nag mais sant di gërëm nag ñi nga àndal ndaxte bi ma yegsee si ci dëkk bi dalal nañ ma wax dëgg yàlla dalal nañ ma dalal nañ sama xel itam euh, bokk nag euh, nekk ci kër gi ak euh, monsieur Ba mi nga xamante ni man moom laa fi fekk ndax mooy premier conseiller bi moom aussi mu dalal ma ci kër gi wax dëgg yàlla macha allah wax dëgg yàlla di ñaan nag ngeen ñaanal ñu jàmm ji yokku yàlla tàppe xol yi te li ñu fi yebal yàlla may ñu doole ak kattan ak mën-mën ba ñu mën a yeglu suñu mission si jàmm ak salaam ak li nga xamante ni mooy li lépp lépp ñun suñu doxin toujours ma koy wax comme na ma ko daan waxee fële mooy yàlla nañu yàlla may ba ñu mën a jëriñ askan bi te am naa yaakaar ne comme ni nga ko waxee fii nag moom mën naa ne xanaa galaxte galaxte galaxndiku la <laughs> boo ko bëggee comparer ak Italie <laughs> mais tamit wax dëgg yàlla bi ma fi ñëwee ba léegi muy nag njaboot gu neex a boot ndaxte dégguma fi jafe-jafe yoo xamante ne jéggi na dayoo ba nag làmmiñ nag ñoo dëkk du ñàkk xëy na yu sew sewaan yu fi nekk mais keroog même ñoom sax ñaata yoon saa yu ma leen recevoir ne leen li ma fii digg yëpp du ay problème am naa yaakaar ne bu ñu waxtaanee daañu juboo mais loolu yëpp ma leen di naan rek moo tax ñun dañu war a gën a sant yàlla ndaxte yàlla daf ñoo may sutura goo xamante ni moo di dañ ñoo yar ci ay valeur fu ñu dem yóbbaale ko nekkee ko toogee ko kon nag bu ñu leen di faral di gis suñu xel day gën di dal ñuy gën di delloo si seen ñuy gën di gën di delloo si xel yi kon gisaat leen si biir njaboot gi ngeen di waxtaan ak njaboot gi kon nag dañuy jàpp ne rek suñ xel dina dal ndaxte temporel moom ak spirituel mënuñu tàqali ko ñoo war ñoo ñooy mës di ànd ndax noonu la suñu societé bindoo. léegi nag tànk yi ngeen jógee nii maa ngi ñaan nag xëy na man nag maa ngi ubbi samay buntu wala nag wala lépp loo xamante ne am ngeen yaakaar ne war nañ si war a mën a jàpp war a war nañ si war a mën a dox su ngeen ñu wax ko waxee rek bu ñu ko xamee incha allah lépp lu ci war daañ ko def si yàlla yaa andi kàttanu borom bi. dëgg yàlla jéggaluwaat nag ci kàddu yi wante nag di ñaan ñu mission bi waaye nag dafa am leen betteel bu bee bu ma yéem bu ma fi fekk ndaxte foog ma wax ka di jéggalu ci kàddu yi ndax Assane Fall mii ngeen mii ngeen àndal maa ngi soog a gis tey wante dañoo yàgg di wax téléphone moom dafa dëkkoon ak sam papa def sam papa man bi ma ñëwee fii sama yaay ooma ne ma xam naa foofu benn kenn ku ñu wax Assane Fall mais damaa bëgg yata kooku nga jàpp ko bu baax ndax dafa bëggoon sa pap def ko pap ji wax téléphone mi musuñu gisee ba barki démb rek mu ngi dal sama kaw ma ne ko mais maman Assane neexul jot <laughs> mu fi am sax ay yóbbante ma ne ko maman Assane neexul jot mu ne waa kon dinaa o Assane wax dëgg yàlla kontaan naa lool ci gise bi xëy na fii la ko yàlla jaarale mais fi nga fi mu ko jaarale nag ma dëgg yàlla neex neex na ma lool <laughs> neex na ma lool wax dëgg yàlla vraiment vraiment di jégaluwaat encore ci kàddu yi bañ a guddal ndax xaw ma li leen di xaar ndax amaana ku ñëw mission moom li nga war a dafa war a bëri mais di leen xamal ne rek ñu ngi ci seen disposition bismillahi allahumma ya quduusu salli wa sallim wa barik ala man nawaytu an na'buduka bi xidmati li wajhika alkarim fi tuuba wa fi daari salaami wa fi daari lminnani wa fi daari lquddus farani lsalaamu walmannaanu تفريح باق عنده الجنان فراني السلام هو المنان تفريح باق عنده الجنان يقود للأطيب في الديور رب الورى القدوس ذو القيور دام دادي وخلام اليوم وبعد الحمد لله الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه فلا تراه العيون والطف الرد في صفاته كماله فلا تخالطه السنون أحمده سبحانه وتعالى بمحامد التي يذكره فيه العوامدون وأذكره بشكره الذي تقر به العيون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تصرفت به الأنبياء والمرسلون اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين salaatan wa salaaman daa'imayni mutalaasimayni ilaa yawmi yubxasuun amma bacd fa yaa ayyuha nnaas maa haasihi alqaflatu allati antum alayha haakifuun tasmahuuna almawaaciisa am tatawahamuun annakum laa tamaatuuna wala tubxasuun ayna alanbiyaa ayna alawliyaa أين المرسلون أين الأمم المادية أين آباؤكم الأقدمون قد صاروا والله في التراب وهم لا يرى ثائبون متقطعون كل نفس شائقة الموت ونبلكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي الحديث أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موطاكم وفيه خيركم من تال عمره وحسن عمله وسركم من تال عمره وساء عمله يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bu ñu sante yàlla sunu borom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi nga xam ne màggam gi kawe na kenn mënu koo gis wala nga wéet ba xam mooy kan dëgg-dëgg xanaa nga fas yéene sellal di xalaat ci meloom yi rek kenn mënta jort moom subhanahu wa na ci xam nan la mel dëgg dëgg ci xam jëmmam ji nan la mel dëgg dëgg dëgg xanaa nga fas yéene di tudd sellam gi di ko teg foo xam ne wéetal ko rek ngay def ñu sant yàlla sunu borom tabaaraka wa moom dong moom mi nga xam ne moo yónni yonenteem bi sallallahu alayhi wa sallam bu tàdd boobu nga xam ne mooy njiitul mboolem anbiya ak mursalin yàlla yàlla julli ci moom te sëlmal ci moom te saxal ko ba faw gannaaw loolu yéen nit ñi lan moo waral càggante gi nga xam ne am na ci suñu biir lan moo waral njortu yu ñaaw yi nga xam ne am na ci suñu biir lan moo waral mooy yàlla gi metti gi nga xam ne am na ci sunu biir xanaa nekkuñ ajjuma ji jot ñu daje fii di leen wax li sunu borom wax di leen waar xanaa nekkuñ di gis ñi nga xam ne ñooñu jiitu woon di boroom xam-xam yi di wàlli yi di kilifa yi di boroom alal yi ñi nga xam ne jiitu woon nañu te faatu anañu ñoom ñëpp ana yonente yi ana mursaluun yi ana ñu baax ni ñoom ñëpp suuf jël na leen wan na leen ci biiram ndax ñun duñu am jàngat kon ci loolu ndax duñ waaru ci loolu xam ne kullu nafsin saayiqatul mawti sunu dund gi yàgg-yàgg ci faatu rek lay mujj ëllëg ñuy def lu baax ak ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci safaan bi dañuy jàkkaarloo ñuy gise ñi nekk sawara walhiyaasu billah naan ñi nekk àjjana alam nakud maakum xaalu balla walakinakum fatantum anfusakum wa tarabastum wartabtum wa xarrakum llaamaaniyu xata jaa amrullah wa xarrakum billahi alqaruur ñi nekk àjjana ñi nekk sawara naan leen yéen xaraa du ngeen woon suñuy mbokk xanaa nekkuñoon woon di dund ñu ne ah kay ñoo nekkoon di dund kay waaye yenn dangeen a topp toppoon addina topp bànneex bi topp poñetum addina mi ba nekku leen ci li leen war fii nag ñun mënuluñ leen dara ndax laa biire woon nañ leen biñ nekk nekkee yéen di dund fii nag yàlla suñu borom rek moo yor àtte bi kon wéy leen dund ci li ngeen doon dund sa ngeen neexoon na leen te ngeen fayu li nga xam ne moom ngeen doon dund bokk yi loolu ba lañ caa àgg suñu borom ubbi na gunti tuub yépp nañuy tuub di dellu ci suñu borom saa su nekk te tuub nag mooy li ngay def nga rëcc ko te fas yéene doo ca delluwaat mel ne ku jog ci am aw xal aw xal wu tànk soo ci jogee sa tànk doo ko ca delloowaat mukk te tey ko kon su fekkee ne yaa ngi mooy balaa faatoo ñëw wala bala ñoo tëj buntu tuub ndax tuub buñ ko nangul ki nga xam ne dem na ba nga xam ne dafa dafa dafa dafa ñàkk pexe Sëriñ Tuubaa mi ngi ñu leeral ne njaalokat bi buñ ko nangul bu demee ba nga xam ne leer na ko ne cër bii tax mu njaaloo njaalo mënatu caa njaalo kooku su boobaa duñ ko nangul ak tuubam waxtu wi mu amee kattan am man-man am ab taar ci la ci lay mën a tuube ñu nangul ko ak tuubam nañuy sax suñuy way faatu ñi nga xam ne dañoo nekk ci sukuraat nañuy fexe ba di leen jege di leen sax baatub laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nañuy rafet rafetante ay njort ci suñ biir nañu bañ a noonoo suñuy bokki julit sëriñ bi nee na wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah képp koo xam ne gimiñam baatub laa ilaha illa allah mi ngi ciy jóge buleen ko noonoo képp koo xam ne rek mi ngi wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam buñ ko def am noon nañ ko def suñu bokkum jullit nañuy moytu di jëwante ci suñu biir nañuy rafet njort ci suñu diggante sëriñ Tuubaa nee na walaatu tusannu anna isma alqiba yaxtasu lil qaa'ili fi l musiba bu leen jort mukk ne bàkkaarug jëw dañ koy jagleel ki wax rek musiba yi day dellu ci ki ko jot li te bokk jot li jëw yomb na lool fi nekk nii maanaam message ojo vocal boo xam ne rek nit yàq na ci bokkam nga nga tasaare ko envoyé ko keneen rek jël nga ci bàkkaar boobu jël nga ci bàkkaar boobu kon nit ki am bàkkaar boo xam ne yoonam nekku ci dafa yomb fi mu nekk nii ngir ubbiku gu àddina ubbiku kon nañu moytu bàkkaaru jëw kenn ku nekk it ci sa jëmm ni nga bëgge ñu fonke la ko nanga ko fonke sa borom wa man wa man haba rijala taxiyabuhu wa man xaqara rijala falan yuhaba képp koo xam ne rek respecté nga sa moroom wala nga rekk nit ñi xamal ne sa moroom da dana la wekk bu ñu jël ay kàddu yu di ko wax sunu mbokkum jullit ak tarixa bu mu mën a do bokk li lisaanaka laa tastur bi awrat amrihi fa indaka awratun wa linnaasi alzunu sa làmmiñ bu ci tudd awray kenn ndax am nga ay awra te nit ñi am nañ ay làmmiñ kon nañuy wax lu rafet ci suñu diggante ak suñuy bokk nañu moytu iñaanante isil azudu laa yasuudu ahada maanaa ku iñaan du sang mukk ndax du am xol bu féex fu mu toll rek kum gis nga sol sax loo xam ne lu ràññiku la dana la ko iñaane mbokk yi àddina jeex na amul solo am naan waaye la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko waxee ne ko euh, ndax ñu soppil la xeer yi ak tund ay jamaa ay wurus daf ne lu koy doyee ndax man àddina mi ngi mel ne damaa doon dox ba ñaq toog ci ak ker ngir sama ñaq fendi rek kon su sama ñaq fendee damay dem kon lu may doyee loolu kon sëriñ bi ni mu diglee ñu liggéey ba mel ne dañu fiy sax ba faw ni la diglee ñu jaamu yàlla ba mel ne ëllëg la ñuy faatu loolu kon lu mat a fonk la allahuma ixfir li wa li walidaya wa lilmuminina walmuminat al ahyaai minhum wal amwaat rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba annar rabbana la tusi qulubana baxda is hadaytana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 wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man shakkaha wa qad xaaba man dashaaha izin baasa asqaaha fa qaala lahum rasulullahi naaqata allahi wa suqyaaha fa kasabuuhu fa aqaruuha fa damdama alayhim rabbuhum bisambihim fa sawaaha fala yaqaafu uqbaaha allahu akbar sami allahu liman hamida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 wa kaana lil waasi'u wal kabiiru radadtu baatilan bi haqqin fa zahaq walil jamii'u ka'sa yughidaq ujaddidu tawhiida wal furuu'a ma tasawwufin hawa buruu'a